tey ñu ñëw ci benn thème bu am solo mooy décembre. Mhm. décembre boo ko déggee bëri na ay mbir. Mhm. mais surtout kote mbaraan. d' accord muy góor muy jigéen. oui te jigéen dañ ne décembre mooy seen décembre. d' accord est ce que yow dund nga. Mhm. décembre yi boo ko jigéen ak beneen góor yàlla. Euh, tout d' abord man euh, weeru décembre bëgg naa ko bëgguma ko quoi parce que d'une part ñun moomuñu ko euh, de l'autre tamit. Euh, du du dañ naan du jikko mais jamono la parce que dañ ko fee fekk fekk nañ ko fi keneen ak keneen di ko def fekk nañ ko fi suñuy maam ak suñuy mag ak suñuy sœur ak n'importe qui di féetee décembre fii nii te ñun mënuñ si ñu dara. léegi show yi nga xamante ne nag dañ ne décembre seen décembre lañ d'une part dañuy nax seen bopp parce que góor góor rek la mën a doon te doo fi gis koo xamante ne gis nga ko mu sonn faqiir lu ba sonn nga ne yow da nga koy mbaraan. Mm-hmm. xanaa mu neex ko nga mbaraan ko te ci jamono ji ju nekk saa lu waaye dëgër dëgër jooy tamit. xale yu jigéen yi laaf bi moo tollu foofu daal mbaraan bi daal doy na waar xale yu jigéen yi loolu rek la ñuy wër dañu nekk si dañu te nekk si moment bi nga xamante ne nag instant bi sañse yi day génn daal yu bees yi yëre yu bees yi te xale yu jigéen ñoo yamatul si benn góor sa jabar sa jabar ji nga am sax dangay da ngay rafet njort quoi wax nag day am dégg-dégg parce que bëgg-bëgg yi dafa bëri si àdduna bi. xam nga jamono ji ñu jigéen ñi dañoo matérialiste de trop opportuniste tout d'abord kon donc loolu loolu loolu su amee góor ñi ñooy prudent rek xam nga nit moom bu ñu la mbaraanee rek da nooy bopp gentleman dëgg jigéen du ko mbaraa. xam na décembre dafa nekk fête boo xam ne fête bu doy waar la feet boo xam te ni jigéen dañoo war a moytu te seen tànk xam ñooy kan parce que décembre nekk na feet boo xamante ni doy na waar doyul waar parce que tey da ngay gis jigéen boo xamante ni day dugg si yow feet ngir mbaraan la ngir jéem am see lu mu bëgg bu amee see lu mu bëgg rek après day dem yoonam bàyyi la te instant bii nii góor ñi nekk nañ góor boo xamante ni góor dafa doy waar góor lu mu bëgg rek si jigéen mun na ko am si gratuite boo xam te tamit du la jox dara. Mm-hmm. man dund naa décembre boo xam xamante ni nekkuma si benn si benn si benn relation boo xamante ku jigéen ne dina parce que musuma musul am. Mm-hmm. parce que jigéen musul a lekk sama xaalis. aussi mm-hmm. te nekk naa góor boo xamante ni am naa fula am naa fula ak fayda ba jigéen du lekk sama xaalis si ay affaire de décembre affaire yooyu noonu. dund ma rokki mi rokaan ma intérêt personnel mais jigéen ñi si seen jëm ñoom ñoom matérialiste jantal gentleman dëgg jigéen du ko mbaraan comprendre nga parce que nit ki soo amee benn xel nit ki su la woowee woowaat la wala ñu am nu mu xam ne kii elle est matérialiste wala dafa opportuniste intérêt personnel donc moo ko initié bu boobaa yow yaay xam ni ngay ni ngay ni ngay ni ngay tojee sa bopp girax mais rokki mi rokaani peut être mun na am mun na bañ a am mais gentleman original jigéen du ko mbaraan daal euh, maanaam solin du ci dara maanaam nit soo simple rek jeex na parce que xaalis dañ naan sañse yaram sañ euh, sañse bàkk la yaram moo koy dégg di donc comme waali ni mu koy waxee ñun yàlla def na ba ñun yoruñu kii quoi yoruñu xaalis yéen yor xaalis newuñu ay multimilliardaire nekkuñu ay millionnaire moomoo seen moo ngi nii sama benn copain day sañse lu ko neex te du millionnaire comprendre nga kon nag sañse nekkul ne dangay wuti xaalis wala ngay jaay sa ngor pour sañse nit ki da ngay doylu comprendre nga bis boo doyloo lépp loo bëgg di nga ko am sa àdduna décembre benn weer la rek la de te motul sax weer du 22 jusqu'au 31 décembre foog naa lépp loo ci gorewul ba mbaraane après le retour la ci dal yaa yaa ko bopp. gentleman gentleman soo ko déggee du du physique bi ñuy gis si góor c'est d'abord avoir un esprit divers boo xamante ne nii fu nekk yow mun nga fa mun nga fa xalaatee léegi su am nga esprit boobu rek c'est pas la peine jigéen a mool defar la sur la focus si sa life. non xam nga xam nga góor yi dañoo bëri ta wute. surtout loolu ak i góoram. Uh-huh. parce que góor moom nekk na góor boo xam te nii comme tey par exemple man ak sama doom ndey. Uh-huh. nekk nañ góor boo xam te nii duñ duñ duñ jël jigéen muy nekk ñu di nekk ak keneen. Uh-huh. waaw nekk na nekk na nit koo xam te duñ jël kii di jëlaat kee. parce que tey bu buñ jëlee rek dañuy def si yow lu war. tamit dinañ la defal loo xamante nii tey doo dem balaa nga seet suñu beneen morom góor. dañuy am Samba mhm. mhm. man benn question boobu noonu mooy que mu am benn jigéen boo xam ne dafa bëgg ñëw si Ahmed am fa cinquante ñëw si Abdou am fa cinquante mhm. genre man conseil boobu noonu góor yi a jox genre jigéen yooyu su ngeen fa dalee ngeen nekk entre góor yoo xamante ne góor yoo xamante ne dara mënu leen a séparer ngir yàlla gën leen a suudeewu parce que gis nga jigéen soo demee bay jaay bay jaay sa dignité man considéré tuma la comme une femme léegi ñaari góor ñi nañ suudeewu xam seen bopp te jigéen bañ leen jaxase su ñëwee ci yow nekk cinquante jox ko cinquante lekk ci moom cinquante su ñëwee lekk ci Abdou cinquante na ko Abdou jox cinquante lekk ci moom cinquante le fait que man cinquante laa joxe ki joxe cinquante moom day perte cent ndax ñaari cinquante la joxe. ñu prudent rek ñu prudent mu xam nga. xam ne bañ a ah. tayle sa live parce que liggéey dafa metti muy téyeur bi muy mécanicien bi muy yow di keneen ak keneen da ngay job ba sonn xam nga mair bi yaakaar la say rakk yaakaar la nga yaakaar sa bopp xam nga il faut nga prudent yee sa xel xam nga firi si xel firi si xol mooy nga yee sa xel quoi xam bu baax fi nga jëm mais sans autant ngay topp neex-neex bi euh, lu ma leen conseil lu tuur la te bëriwul ñu toog seen gàlle xam ñooy kan et tout bi dafa jeex pare dara yàggatul peut-être dina am góor bu leen fekk ba seen pooju yaay jël leen def leen soxna loolu rek laa leen conseillé te dignité ak réputation nit ki moo koy sàmmal boppam jeunesse day wees parce que la beauté elle est éphémère ça se passe nga te te bu dee jigéen da ngay ñaan yàlla ëllëg am sa jabar am sa am sa jëkkër am sa njaboot sa say doom am lay bu rafet mooy li mag ñi daan wax ah sa yaay de ba mu ci toll nii la meloon wala sa yaay nii la si teeloon léegi soo tollee sa jeunesse di nga rafet di nga mool lépp lu jigéen lépp lu góor di war day nekk si yow en fait soo toppee beauté boobu noonu da ngay dund lépp lu la neex si àdduna na que seetaan dalay lay jay mun nga def lu la neex mun nga am lu la neex mais su weesoo ba nga war a toog ëllëg après sa réputation ak sa dignité loolu day nekk à zéro kon doomu aadama nit ki buy def du def pour tey day def ngir ëllëg ko nga nit ki sois humble fépp foo dem sa dignité na la fa téye te bul perdre sa dignité personnalité ci ay xaalis wala koom-koom wala lu ñaax fu la jigéen ñi xam nañ seen bopp te xam ne yéen maanaam da leen a valoriser bu nekkul ñun yàlla moo leen njëkk a valoriser maanaam yéen tey seen su ngeen ñu ko jaayee ñun am nañ njeg bi parce que ñun ay góor lañ mën na leen def la nga xamante ne yéen a koy rëcc ëllëg te àdduna dafa gudd tànk surtout loolu décembre jaru ko s'il vous plaît dama leen ñaan ngeen téye seen bopp ah xam ki ngeen doon su ngeen mënta liggéey ñaan leen papa ak yaay mënoo leen ko restez chez vous décembre yàggul wala nga sol li nga am génn bladé wu ci ci ci ci endroit yi dans toutes les coins fii nii Diourbel am na pas mal d'événements yoo xamante ne c'est gratuit soo fa demee soo mënta ànd ak sa copain mën nga ànd ak ko nga xamante ne dina la doon di bleu di di di comment dirais di bonheur plaisir ba nga xamante ne di nga ko mën a partager yéen ñaar te dara du la ci fekk.